Jamalaahi Evans na ko ci jigéen ñi nga xam ni bu góor ñi génnee ñooy des ci kër yi xeex na ko ci góor ñi nga xamante ni ñooy bàyyi soxna yi te ñoo uuf njaboot xeex na ko ci jeunesse bi yëpp réew mi ak bitim réew yëpp ndax suñuy mag wala suñuy rakk yi nekk bitim réew yëpp gisatuñu bàyyi gisunu yaay bu leen tere sëriñ bi dina dugg seen biir fàttali leen si mu jóge fàttali leen li nu am te war ko téye te mu bañ a réer ci seen loxo

muy crise des valeurs suñu koy wax maanaam ku amul dono doo perte dono lëm la nit am mu baax taaru rafet ban naan perte na ko wala mu ngi koy waaj a perte addina ñaar même ki fi toog yor téléphone bu wax doon tey mën na ko gis mën na ko bañ a su suñu demee ba sunu dono ñu am lu nu ci perte mën nanu ko dab waat wala mënu ko lépp sëriñ seex dina ci ñëw sanga bi waa zikra ahlul kiram yépp ñu ngi ànd di la teeru dina la mais di la diglu ci thème bi te Cambérène gi nu ko waxtaane am na lu mu yoroo loo xam ni parcelle ñeewoon na ko démb mais ndax bu nu duggaatee parcelle ba tey ñee na Cambérène am na loo xam ni Cambérène amoon na ko ci dono téye ko ci valeur Grand Yoff Médina Yaraax ñi mais ba tey ndax ñoom ñu ngi loolu sëriñ bi lañu koy bàyyal bu jëlee kàddoom dinañu xam ni li nu amoon te mag ñi ko fi wala nga ni Seydina Isa sampoon ko ci dëkk bi nga xam ni ku ne xam na ni am na lu mu sampe dëkk bi am na lu mu fi bàyyi woon la mu fi bàyyi woon nag da doon boo xam fii ba bitim réew amuñu loolu ndax mu ngi sunu loxo ñu ndaw yi bëgg wala déet Serigne Cheikh dina ci ñëw sangam yi ñu ngi lay ubbile noonu thème bi te di xam ni lépp lu ci namm te bëgg ko ci dinañ ko ci am ñu ngi lay delloowaat sa wàccuwaay di la dalal di la ziyaare ndax jëmm la joo xam ni Serigne Idriss jarul ñu koy benn bennal xam na ni boo ko tënkalee li mu war a wax dina ko waxe ni nga ko bëggee te loolu na fi ñëpp di séenu te lool la ci ñëpp bëgg kon sang bi ñu ngi lay dalal di la jox sa wàccuwaay di la ziar bu baax ñu bëgg ñëpp ñu déglu sëriñ bi ci li nga xamante ni nii dina nu ko leeral ci crise de muy li nga xam ni am nanu ko te gis ni jamono ngi dox danu ko perte wala mu ngi sunu loxo wala ni lu ko téye moom baaxul kon ñoom ñëpp ñu déglu ci sanga bi Oustaz Seydina Mandione maa ngi lay nuyu ziar bu baax. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من قال بلغوني ولو بآية وهو سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا إمام الله المهدي المنتظر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلد yu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan ci yàlla suñu jataay bi yàlla na ko yàlla boole ci jataay ya mu nangu di leen jottali nuyu xalifa bi Seydina El Hadji Abdoulaye di ñaan yàlla na fi yàgg te wér آه. فلله الحمد والشكر جناو يلا اكي ماما اكي بايا لبو ماما يلا في يك تامير من يان الكي يب ان جابر يب yàlla dogal ñu ànd ak suñu kilifa suñu xarit suñu mag sëriñ moor laay mu baax mii nga xam ne tànneef la royukaay la kon mënuñu lu dul rek ñaanal ko mu yàgg fi taamu wér yàlla defal ko nag suñu rakk yoo xam ni dafa sës ci ñun gisul boppam fu mu ne ñun rekk la gis muy Chérif Idriss Laye yàlla na teer waaye naka noonu sëriñ Jibril mu baax mii moom itam takk ndiggam rekk la ñu doon wax mu faf ko jëf kon Jibril jërëjëf ak mbooleem sunu njaboot gi fi teew nga xam fi dañ fi nga xam ni dañ fi teewal kilifa yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di beral nuyoo gox bi ñu ne di ko teg ci loxo libaas mii ak maam raan ñu jottalu ñu ko gox bi yëpp di leen ziyaar waaye di beral nuyoo suñuy rakk jigéen ak suñuy soxna maa ngi fii seen aji xadi càndum waaye maa ngi seen sama soxna aji xadi ngom di beral nuyoo nag responsable moral maam Alassane Laye ibnu Chérif Abdoullah ñun ñëpp nag dañu boole sunu kàddu man sëriñ Mor ba ci Seyna ba ci suñuy baay ba ci suñu rakk yi Seydina Idriss ñun ñëpp dañu kaddu boole suñu kaddu ne maam Alassane jërëjëf waaye waxaat ni waa ahlu kiraam jërëjën jëf ndax itam ñaar am wax ak jëf am ñu dañuy wax rek te duñu jëf am ñoo xam ne dañuy boole wax ak jëf maam Alsaan nag dafa boole wax ak jëf mu ànd ak ak yéen ñuy profité di am mbégte di ko feeñal ci bijou bu rëy bi nga xam ni moom ngeen réaliser muy maison fédérale ñun ñëpp ñu rafet lu ko ndax du wax ay ay wax kese waaye ku fa jaar rek da yëg ni ñuy def lii jaar nañoo encouragé kon jërëjëf mam Alsaan waaye jërëjëf ahlul kiraam ci góor ñi ak jigéen ñi maam Alsaan yàlla na nga yi na la yàlla jàppale